ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ci penku réew meeg sow réew meeg yëpp maa ngi tudd Oustaz Saïd Gueye bokk ci kilifay daara ji bokk ci ñi ko war a ñi ko mos a jiite 1995 ba 2000 waaw te maa ngi dakaar incha allah laa jógee ñëw ci xew ndaje mi di li waral loolu jàmm la rek mooy daara joo xam ne ñu ngi jógee Kokki 1980 ñëw sànc ko fii tolloon ci fanweeri nit bi fi nekkee ne daa ji di màgg di màgg di màgg ay Saalum ak Kajoor ak Bawol ak fu nekk ñu dem fa jógee ñëw ba génn réew mi sax léegi a ci fanweeri nit ba léegi ñu ci lu mat junni nit léegi nag bi fi nekkee ñun boobu daal amagul dëkkuwaay xale fi génn nag dem ci biti ñoo dem mu mujj ñuy gis ne daara ji da war na dëkk dëkkuwaay ndax alxuraan fi ñu koy jàngee day war a am foo xam ne barab bu ñu war a moom la day na ab ay kër rek bi ci dëkk su borom soxlaa ñu jël ñu ko beneen kër dama mujj nag yàlla def soxla sama gannaaw yaayam muy soxla Kumba Sise mi yaayam moo ñu njëkk may pàkk fii ne ñuy continuer di lijjanti yeneen pàkk di ci teg ba ak si fii tey yàlla bâtiment yi tey ndong yi fi jógee bis bii moo tax ñu ko lu ñu fi jëlee rek daal ko dugal ci daara ji année bu nekk ñu def ko ba tey taxawal fi ñaari bâtiment ak ñaari ñaari mbaar yoo xam ne bu nekk ma dañ ko étage def ko 7 mètres karale ko biiti ak biir ak biti loolu mooy saw bi maanaam ndaje mi année bu nekk ñu def ko rek pour luñ fi jëlee rek doo ko ci daara ji waaw. daara ji jamono ñu toll nii li fee yeewoo 1000 personnes teg na junne xale yi teg ñu ci daara ji ñoo xam ne dañuy jàng. ñi fay jàngale ñi ngi war a toll ci juróom ñett fukki pers euh, xaafis ñoo xam ne lañ mokkale di fi jàngale ci daara ji waaw dund bi de waa dëkk bi ñoo gar dund daara ji amul kenn koo xam ne dafay nekk toog di jox daara ji waa dëkk bi daal njaarim ñooy dëkk boo xam ne li ko waajoo xoon sànq rek gisuñ ci Sénégal dëkk bu leen man ci da ci ndong dëkk boo xam ne la ñoom ñëpp ànd marché bëgg dongo yi bëgg leen di añ ak reer ak ñoo ko ñoo ko jox dëkk bi daal ñoo waa daara ji waaw loolu ba tey ñoo ca taxaw donc ba boo xam ne am na jafe-jafe am na ndey daara fi nekk sëñ ko moom mii ci la bokk su ko soxna Mari dem soxna Ndogay Ngom soxna euh, euh, kii Ndey Seen ak ñi àndat ci koñ bi ñooy ñooy topp ala bu nekk ñuy dugg ci koñ bi di laaj jigéen ñi lañ leen jox ñu dajale ko dem di wut ay mutuelle di ci faj xale ku feebar ñii di yóbbul hôpital di la faj loolu daal euh, formé nañ ci daar ji ñoo xam ne fi lañ jógee moo jàngee fi ku mel sëñ Moxtaar Daraame bokk di ci ñi ak euh, soxna sëñ bi tam léegi sax bokk na ci ñi xam dañ leen formé ñi faj xale yi nekk ay docteur di topp xale yi leen faj lu lu leen tël nag ñëbbu ci hôpital yi jàllale ci hôpital yi waaw waaw bi de ñun gisaguñ taxawaay boo xam ne taxaw na ko fi su may suñ maire Malick Fall mi xam moom moo fi taxawal état daal xam naa ne moom moom jàmbaar la ci dëkk bi moo lool moom ci ci wàllu daara état nag euh, président Macky Sall bu yàgg woo na woo na daara yi def ndaje ak ñoom léegi bëgg na dugal loxoom ci daara wax na ne ci fond de dotation bi dina jël 6 pour cent yaakaar di ko dugal ci daara année bu nekk léegi te mi ngay ñaan mu yokk kon léegi mu mi ngi wëlbati ko jublu daara yi ah ñu ngi koy ñaan yàlla yéene booba mu daal di ko yeggale yàlla mooy ko kattan mu gën koo mën a yokk ba ku fi ñëw rek li fi tegoon da cay yokk waaw ñun de si ruq bi nekk nii fukki at ak dëgg bu ñu waxee si ndëgg gis dëgguma ñëw loo xam ne maanaam ñu ne lii ci nguur gi la jógee ñëw fi carrément si maire daal fi nekk Malick Fall ak soxna Koumba mii ak ñi fi nekk notamment dëkk bi daal nekk daam daam daam daam euh, daam daam Diop ñoo yàgg nañ seen wax ci daara ñoom ñoo nag ay nit waaye lii moom carrément ca maanaam foofu la jógee carrément ñëw fii moom amaguñ ko woon waaw ñooñu daal ñu ngi ciy jàpp seen seen kéem laa kattan ameen ñaa docteur ameen ñaa ñoo ñëpp ñoom wax dëgg boobu daal sosoo ba léegi ñoom buñ duggee seen loxo ci daara ba léegi heure bu nekk xew bu ne ak bu du xew sax seen loxo mi ci daara ji sëñ Kumba soxna Kumba mii moo fi def teen bii xale yeroot yi doota amee ñaar mooy fay courant bi Malick faal moom ba ñuy sanc moo ñoo camion suuf yi ak ak ak ak ak service am yi xam ne ñooy tabax ñëpp ñoo ànd daara ji ba léegi moom mosu bàyyi loxoom waaw suñu jafe-jafe de bokk na ci dëkkuwaay bu mat bokk na ci am faj bokk na ci euh, bëgg nañ tam ay école yoo xam ne xale yi fi mokkalee yeneen foo ay classes yoo xam ne lañ koy mën fa jàng maanaam xam-xam di fi arab français ak ba anglais yëpp ay projets yoo xam ne bëgg nañ ko amaguñ ko loolu yëpp ku ci jàpp la ñu jël waaw loolu moom bokk nañ dëkkuwaay ak faj ak ndox yooyu ak wàllu njàng loolu bokk nañ ci yi gën a am jafe-jafe waaw dëkkuwaay yu mat waaw sëñ dëgg am na ci ñoo xam ne eh, bi bi ci sëñ Mountakha jotee am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla def na génn eh, eh, génn nañ am na ñoo ba tey am ñu des ci kase ñu des waaye am na dëgg yaa yoon yéewi na leen ñu génn waaye am na ñu bëri ñu des ci kaso bi ba tey ñu ngi ñaan président Macky Sall suñ kàddu gi bu ko déggee ci man mu jàpp ci seen daal yooyu ñu des ci kaso gi ñu ñu ko dee dama bi yof jàpp xabaar mu nekk tiis boo xam ne bu métti ñaari bis yu daje bu jógee ñu ne côté Dakar ak Tamba ñu daje léegi bi mu jo aro ñu ne war toll ci juróom fukki nit ñi ngi yoo jaale waa Sénégal yëpp xam naa ne tey yu bëri war nañ ci am ñu ci bokk waaye ñu ngi ñaanal yàlla ñooñu noonu ay martyr lañ ku dee ci accident martyr la koo xam ne shahid la ci koo xam mooy àjjana jëm direct ñu ñaan yàlla yàlla jéggal leen waaye seen njaboot yàlla may leen xolu muñ yàlla yàlla gëjal fi loola loolu ñu ngi ñaan rek réew mi de wala pétrole bi génn ni ci mi source ñaan mën ko jëriñu ko ba am yoon yaatu yoo ne oto yi day nekk autoroute loolu bokk ci wàññi wàññi accident yi bu dëkk boo jëm mu nekk autoroute bu accident yi dañuy wàññeeku loolu ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla defal ñu ko président lii màcc bi génn ci mi nii ñu fexe ba ñu mën tabax yoon yu yaatu yoo xam ne comme Europe xam ne doo booy dem doo doo daje kenn booy wàññeeku doo daje kenn waaw safar yi tam ñu ngi leen di wax ñaax dëgg ñuy def ndànk su su biis soixante-dix personnes boo ko sëfee war ngaa xool ay bakkan nga sëf war nañu bàyyi xel bàyyi wàññi xel yi ñee daw waaw ndax li ma dégg ci li ma dégg ci kii ci ci suran RFM bi daf ne benn pënu mu fukk mu dal ci beneen bi bu fekk bu bis bi dawul teel bëri mu fukk loolu musiba la waaw ñu ngi jaar waa senegal yëpp waaw promotion ren ko waxee ñaata xale ñoom ñoo waaw ren diggante daaw ren am nañ 53 personnes yoo xam mokkal nañ ci daara ji 53 personnes ñu ngi ñaanal euh, ki nga ne moo maanaam initié daal di solo la ñoom ñëpp muy daaw nu tudd daaw de tin moo leen solo ñoom ñëpp suñu beneen xale boo xam ne fii la nekk Dakar yoo fa daara mooy itam ñoom Moustapha euh, kii Moustapha Seck moo jënd ñoom itam solo leen ko ñu ñaan yàlla yokkale ñoom ñëpp mbooleem ko ci duggal sa loxo rek lay ñaan yàlla yoo sax ni sural si itam fu nga jógee kenn ku nekk rek groupe bu nga jógee ñu laa sant di gërëm si association bi lënkale daara yi ñi génnee si daara yi Rox di yëngoo fee ci Mbour nekk fa si section bi nga xam ne suñu président Omar Cissé moo ko jiite suñuy objectif nag mooy di dajale ay fonds ak fu ñu ko mën a amee moo xam si ay relation la moo xam si li ñuy yëngu ñun si suñuy si suñuy commerce wala si suñuy jàngale jël si lu ñu am ñëw dimbalee ko daara loolu daal mooy suñu objectif association bi nag suñu président Ousmane Touré moo ko jiite ñu toftal ma ci euh, ginnaawam ma nekk vice président nekk tamit ci comité bi nga xam ne ñoom ñooy gàlloo li nga xam ne moo organisation bi waaw. appel bi may def si daara ji mooy di woo jullit yëpp du ma ne Sénégal du ma ne Afrique damay woo monde entier képp kuy jullit na ñëw gëstu daara ji daara ji daara social la. dafa dafa daara ji dafa am particularité par rapport ak yeneen daara yi ndax boo nee Koki am na père fondateur mais daara jii ñu nekk di daara Rox Koki a wax diw moo ko moom a wax nii la sant daara jullit yëpp la ku fi ñëw andi fi sa doom dinañ ko jàngal ba mu mokkal alxuraan yar ko delloo la ko te dooñu la laajuñ la dërëm ki koy jàngal sax mën na bañ a xam waajuram sa waajur man fi laa jàngee ki ma doon jàngal xamul sax sama papa ak sama yaay fi laa jàngee fi lañ ma yaree ba tey jii. may mën a amaat reconnaissance su ñëw fii nii encore di jéem a jël sama tuuti énergie ak sama ñaq di ko delluwaat si daara ji ndax daara ji defal na ma loo xamante ni xëy na mënuma ko fay mais li may woo sama li may li may soññee samay samay mbokk ak ñi nga xam ne ñu ngi woon si daara ji moo ñu dellu siwaat si daara ji fu nit mën a nekk si Sénégal ak si bitim réew surtout ñu nekk si diaspora bi daara ji bari na tey ay ay ay doomam yoo xam ñu ngi si diaspora bi ñu ngi yëngu si ñu ngi yëngu yàllaa ngi leen di suturaal am na ñoo xamante ni ay personnalité am na ñoo xam ay imam lañ am ñoo xam borom xam-xam am na ñoo xam ay commerçant yu mag lañ ñu ngi leen di woo ñu ñëw def ni Ousmane Diop def Ousmane Diop mastile la nekk si daara ji la nekkee si daara ji la tey dafa yëkkati somme un million ñëw teg ko si table bi képp koo xam ne mën nga lool def ko ndax bien-être xale yi ndax lii ngeen réalisation bii nga gis daara ji def ko association bi ñoo ko def ak bon volonté yu mel ni soxna si ak euh, monsieur le maire ak euh, ak euh, ministre Dame Diop ak ñu mel ni ñoom ak euh, directeur Crous Bambey ñoom ñooy dugal seen loxo si daara ji ak xaritu daara ji ak euh, suñu yaay Daba Seck ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ñooñu ñoo boole seen doole tey taxawal réalisation bu toll nii nga xam te ni tey ay ay ay dizaine de million la chaque année dinañ fi collecté daanaka lu loo xam ne ay ay ay ay ay yu bari la ñëwaat investiraat ko si daara yi demaat wutiwaat lu ñu am ñëwaat delloowaat ko si daara yi comme ni ko Oustaz waxee. ñun suñu projet bari na. bokk bokk na si poste de santé. bokk na si tamit ñu ñu jag ñu ñu ngi ñaan collectivité locale bi nekk fii ñu jagleel ñu ñu jagleel ñu espace bu yaatu boo xam ne daara ji dina fa mën a cultiver daara ji dina fa mën a bay wala mu wala mu fay yar wala muy wala muy yëngu si loo xam dina dina mën a dellusiwaat si daara ji nekk ay revenus yoo xam ne revenus yoo xam ne si daara ji la dellusiwaat nga xam ne duñ soxla yenn saa yi chaque ñu ngi ñu ñu ngi ñaan tamit état mu ñëw dugal loxoom si daara ji ñi fi nekk mën am formation. mën a intégrer si si si si administration parce que ku moo ko alxuraan rek boo ko bàyyee mu dem amul benn benn amul dara lu mu war a woon def lu du dem commerce parce que day fekk amu âgé déjà kooku nag day laaj for nga former ko nga former ko ci métier wala nga former ko ci ci ci ci ci njàng ba mën a taxaw dëkkam te tey jii gis nañ ne ñi ñi génnee si daara ji actuellement ñoo gën a intègre ci réew mi ñoo gën a jub ñoo gën a mën a sàmm alal réew mi tey jot na ñu daara ji daara yi nga xamante ni mu ngi mel ni rox kokki wala yu mel ni yeneen daara yi ñu jël ña fay nekk di fa génnee di leen former delluwaat leen société bi ñu mën a jariñ seen réew hmm.